ak ñoom naqar bi nga xam ni yàlla wàcc na ko sunu waajur sunu waajur bu tedd wi waaw ndax ñun nit ñi rek lañu am ndax dama ni ko nga xam ni tey soo demoon ci benn béréb mu am junney nit nekk fa mu am benn place place boobu yow lañ koy jox waaw suñ la rombee ci mbedd mi simmi seen ñaari dàll jox la ñaari loxo tàll seen loxo nga tëdd. làmb seen poche lu si nekk yaaka moom moo xam ñaan nga ko moo xam ñaanu leen ko yow yaaka moom ma ni que nag euh, peuple bu nga xam ne bii nag defal na la lool waxtu bëtam xonq rek su geesoo war na la gis loolu rek moo tax ñuy yëngatu si yenn yi lii nag moom dogalu yàlla la wallahu yaxkumu daa mu aqiba li xukmihi wa huwa sariicu l-xisaab awalam yaraw annaa na'ti l-arda nanqusuhaa min atraafihaa wallaahu yaxkumu laa mucaqiba li xukmihi yàlla ne maay jël wàllu suuf daggat ko ba mu jeex ñu laaj boroom xam-xam yi naqsul atraaf mooy lan ñu ne al ulamaa wal fuqahaa waa Seydina Abbas di bàyyi taxu yonent bi nee na képp kuy def lu baax si kaw suuf rek dugg nga si wallaahu yaxkumu laa mucaqiba li xukmihi sa maam si xaajmaa yi bu ñëwee tàggi ka taawam bu jiyam soxna Fass si dafa ne e sa maam xalifa ne e boobu dafa ko daggal istigfaar ndax nee na luy sama yoon si faat si bi ko yàlla di bind tàgguwuma te yàlla dafa nekk buur nekk boroom waaye boroom la gën nekk buur boroom nag dafa am yëfu boppam mu ñëw dénk la ko waxtu wu ko soxlaa ñëw jël si man alaaj Malik lu si sama yoon bam naan e xelam dem sa aaya ba wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa huwa sariicu li xisaab waaw ni mu gé mu feeñ nag istigfaar boobu si ay eh, si ay qasaidam yu bëree bëre wa raddini bilqada rabbi musabirani ala balaika ya rahmaanu ya allah ni yàlla tey nag man alaaj Malik waa ci nga sama kaw nattu waaye man doomu aadama rek la soo ma joxul kàttan du ma ko nangu sama jox lu kàttan du ma ko muñ kon nag jox lu kàttan ñu nangu ko muñ ko kon tey nag suñu waaju yi li wàcc si moom tey ñu ngi ñaan yàlla rek mu jox nu kàttan jox ko kàttan jox leen kàttan eh, ba ngeen mën ko muñ yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko def di ko gërëm nag moom si taxawaayam si réew mi waaw parce que taxawaayam rafet na ñi ñi waxtu bu seen bët xonqee rek si moom la xalaat mu taxaw fajal leen ko nag lii fi xew jamono yii rek euh, firnde si ndax wala fi dañ kilifa du taal daay day fekk daay bu tàkk ba pare wala bi bu tàkk mu ñëw fay ko ñun nag li nu nemmeeku si sunu ay at taxawaay boobu ngeen taxaw di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal moo xam gis na leen moo xam gisu na leen si responsabilité bu yaatu boobu yàlla jox leen si ndam loolu moo waral itam tey ñu pëndal sunu ay tànk rek euh, pour ñëw bokk moom naqar di ñaan yàlla ki nga xam ni fii moo fi jógee euh, yan naka yàlla nandal si jéeg ko sore ñaan yàlla mu defal ko mu wax si gaayam yi si alxuraan ni keroog yowmal xiyaam du mu su mu leen dawalalee film bi nu liggéey si biir àdduna loo gis seen xar kanam bégte rek ñu boot seen loxo di doxantu si àjjana wujuhun yowma idin naima li saayiha fi jannatin la tusmau fiha daariya fiha aynun jaariya waaw yan na ko yàlla defal te yàlla guddal fanam yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yan na ko def di fend li nag euh, sama cofeel si yow waaw si taxawaay bi nga taxaw en tant que porte-parole di responsabilité bu rëy a rëy ñu fasante kóllëre ndax lépp lu wàcc si sunu kaw euh, si kaw Cheikh kër Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha wala kër Alaaji Malick yow la góor gi di yabal nga ñëw taxaw ko taxaw bu rafet rafet moo tey tax tey ñu delloo la njukkal si loolu yal yàlla guddal fan wi yal na yàlla leeral yoon wi te moom yal na ko fi yàlla bàyyi yàgg yàgg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi yëkkati kàddu yu tedd yu yeyoo daraja ji la ji nga xam ne yàlla suñu borom moo leen ko jox di ko yëkkati di ko teg ci sa loxo ak mboolem sa rakk yi di Cheikh Omar ak mboolem taalib muqaddam yi nga xam ne ñoom nga àndal taalib yi di la nuyuwaat bu baax a baax xam naa Cheikh Mahmoud Mountakha sax mi ngi leen di xaar ci këram léegi ngir saafonte yow nuyoonte yow ndax comme ni nga ko waxee bi ñu ko yëgalee itam jot nañ ko ko mu rafetloo ko bu baax a baax ngir xam ne boo ñëwutoon itam mën na laa teewal ndax xam ne responsabilité bi nekk ci sa loxo ndax euh, boo woyofalee sa jëmm woyofal sa bopp it yàlla woyofalu la ndax responsabilité suñ borom la ko jox kon ñuy rafetlu bu baax a baax tànk yi ak jéego yi ndax jamono ji xat na te am ngay ndaw yu bëree bëri yoo xam ne koo ci yónni woon itam mu doy sëkk ñu xoole ko si jëmm waaye nag euh, sag baax ak sag rafetal ak sag woyofal sa bopp te rasulullahi dafa wax ne man tawaadaa rafaahullah kon loo toroxlu toroxlu it suñu borom moo la yëkkati ndax moo la jox cër moo la jox daraja kon ñu la koy xoolee di la ko jàppe di la ñaanal itam suñu boroom mi ngi xam ne mooy boroom kàttan di def di dindi yow itam mu gën laa dëgëral gën a dëgëral sa taxawaay ndax doon coobare suñu boroom la ndax ku la gis xoolale Cheikh El Hadj Malick si waaye ku la xoolit sëriñ Serigne kër si ku la xool xoolale Cheikh Mouhamadou Moustapha ak rakkam yu tëdd yi nga xam ne ñoom newoon ci ginnaaw yëpp di Cheikh Mouhamadou Mansour Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak sëriñ Abdoul Aziz Sy Al kon ñooñu ñëpp tey nga taxaw seen jotaay dikkaale leen kon loolu sëriñ bi nga koy rafetlu yoon mu yëpp ñu ngi koy rafetlu. ñoo xamit kóllëre gi nga xam ne dafay yàgg mu doxoon ci diggante sëriñ Touba ak Sidi El Hadj si Sy muy kóllëre gu rafet bokkuk deret boole leen bokkuk diine boole leen kon ñu bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo muy loo xam ne lii rek mooy li ci jaadoo di ko rafetal maa ngi fàttaliku ci jamono yi Serigne Sidi sëriñ mm-hmm. Serigne Mastamba yoon ci Serigne Abdoulaye Ciss ci ku faatu woon ma di ko jaale si tey mu bég lool ba ne ma tey de bu rendi nit daganoon ku sant si lay lay rendi jooju wax ju rëy wax ci la ci ci la rëy mën a mën a yem waaye ñun itam na nga xam ne sa dikk gi noonu la toll ci ñun boo ko woyofalee woyofu ci ñun ndax xam nañ li nga doon te yàlla suñu borom moo la teg responsabilité yi ginnaaw bu loolu lépp jàll itam ci. kóllëre ak bokk gi nga xam ne moo dox ci diggante bi di rafet ba ndëgg ni tawar di gën a rafet ñu di ko suuxat ngir li ñu ko lislaam sant waaye ñu di ko suuxat ngir jàmmi Sénégal ak jàmmi réew mi te muy loo xam ne istiqraar bi am ci biir réew mi loolu mooy li ko gën a suuxat gën koo dëgëral kon ñëpp am ci am responsabilité ci sàmm ko euh, di nuyu sëriñ Serigne kër si mi nga xam ne mooy alxalifatul am di tarixati tijaniya ba ma fa Cheikh Mouhamadou Mountakha yónnee bu yàggut bokk na ca kàddu yam wax maa ngi lay yóbbante ci sëriñ bi ne ko lépp lu dégg te méngoowut ak kàddu yi ma wax na xam ne kooko bu fi bokkee bokku ci njaboot gi daan ne xam naa ne foofa itam lépp luñ dégg loo xam ne méngoowut ak kàddu yi dafa bokk waaye bokku ci njaboot ga kon loolu di kàddu kilifa kon sa tànk yi itam ñëw ngir soxataat loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax muy loo xam danga ko def wutu ci ñëpp waaye di rafetlu sa taxawaay ci réew mi ndax li lay yàlla jox ci cër du ma ne doy na waaye ëpp na ndax li nga doon ak cër bi mu jox ci biir kër gi ak li topp ci sa ginnaaw waaye gisoo ci dara eh, day mel ne li la gën a iteel rek mooy loolu nag kon day mel ne boo ko defee masuliya la boo xam ne danga ko defaale ñëpp. defaaleel nga ko Touba defaaleel nga ko Tivaouane defaaleel nga ko kër diine yëpp muy muy lu rafet loo xam ne dañ koy rafet ndax xam nañ ne amu ci lenn loo xam ne koy def ngir sa njariñul bopp loo ci def rek njariñu réew mi tax ndax euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax naan li banki woom banki bënkutub xol nit ñi bu ñu waxut itam seen xel dana xalaat ndax loo xalaat ba jàpp ne xamuñ ko rek na nga xam ne bu ñuy xalaat fa la ñu kon dara umpewut kon ñi ngi rafetlu sa taxawaay bu baax la ñaan suñu boroom dëgëral la kàttanal la gën laa mooy ndam ci ñaari mission yi nga xam ne suñ borom teg na ko ci sa loxo tey te ñëpp am ci yaakaar ngir sa taxawaay ak sa yitte ak sa xam-xam ak sa woyof ñu ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu